mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020 2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon a déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon a déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 bi ni'mati rabbika bi majnun Voilà, peut-être un peu juste euh, euh, revenir sur l'importance de ce travail-là. Parce que le budget permet à la fois de savoir les recettes estimatives attendues, mais également les dépenses à couvrir. Donc c'était important pour démarrer que le complexe puisse évaluer dans les détails l'ensemble des dépenses qu'il faut pour permettre à ces structures-là de démarrer. Mais également, il fallait réfléchir sur les sources de revenus. Au-delà de la subvention éventuelle de l'État, est-ce de, de ressources propres sur lesquelles euh, le complexe pourrait se baser pour supporter ces dépenses-là. C'est extrêmement important parce qu'en réalité, toutes les structures euh, de renom, en tout cas, établissent des, des, des budgets annuels pour dérouler leurs leur, leur dépenses respectives. L'autre aspect également, c'était que on devait également produire un extrait de manuel. L'extrait de manuel, euh, est aussi important, sinon plus important que le, que parce que ça euh, doit permettre à l'ensemble du personnel de l'administration qui sera là dans un moyen court terme de savoir les procédures à dérouler, en tout cas pour assurer une bonne gestion du complexe. Donc et ça, le, le marabout y tenait vraiment, parce qu'aujourd'hui, on tend vraiment à à, à, à, imiter les, les, les standards internationaux. Et c'était important qu'au-delà du budget, que l'équipe d'experts qui a été convié à ce travail-là puisse euh, réfléchir en tout cas à définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les, différentes procédures à, à, à adopter euh, pour atteindre les objectifs euh, fixés. Maintenant, je le disais à la fin de la rencontre que aussitôt ce travail-là fini, il va nous falloir très rapidement aller vers l'élaboration du plan stratégique. Parce que ce plan stratégique-là devrait permettre dans un logique de dans une logique de de moyen terme trois cinq ans de savoir les objectifs que le complexe va se fixer par rapport euh, au nombre d'apprenants par rapport peut-être aux, aux, aux, aux, objectifs en tout cas, aux résultats à atteindre dans un, dans, un, dans moyen terme, mais également par rapport aux sources de revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le plan stratégique permet globalement pour le complexe, dans, une, euh, dans un délai relativement court, de se fixer des, des objectifs, mais également d'estimer de, de, de en tout cas les sources de revenus sur lesquelles il devrait se baser pour, pour atteindre ces résultats-là. Assalamu maa ngi rahmatullah. daali ñang nekk chef de service finance UFR CRAC ci université Gaston Berger bu Saint-Louis waaw ñi ngi ñi ngi santaat yàlla bu baax tey jii ñi ngi fi daje woon euh, ci njiital Serigne Ahmadou Badawi ak ci invitation Serigne Mor Faye euh, amal fi liggéey boo xam ne travail de restitution mu jëm ci liggéey boo xam ne santoon nañu ko mu jëm ci defar euh, projet de budget démarrage complexe Cheikh Ahmadoul Khadim liggéey bi nag biñ koy door a tàmbali ñëwoon nañ fi daje fi ak sëñ Ahmed Badawi mi nga xam ne moom liggéey bi yëpp bañ ko tàmbalee léegi ñun ak moom ñoo ko ànd guddeeg bëccëg suba ngoon euh, ñu ñëwoon fi daje daje tamit comme sama naataango bi ni mu ko waxee sànq ci dubaab ngir am li nga xam ne moo doon euh, laltaayu liggéey boobu mu jëm ci wàllu information maanaam ñëwoon fi collecté fi ay information yoo xam ne comme ñun liggéey bi dañ koo dab ñu jël ay information yoo xam ne moo ñu moo ñu may ñu mën a defar liggéey bi nga xam ne tey jii moom lañ moom lañ doon jébbale joxoon nañ sax document bi sëñ bi fan yee waaye xew-xew yi amuñ ci diggante moo taxoon mu waxoon ñu nañ bàyyi ba tey jii ñu daje fi ndax ñu gën a leeral liggéey bi ndax xam nga liggéey moom boo boo ko bindee ci këyit tamit dana jar yenn saa yi maanaam daje ngir gën koo leeral ndax këyit gi mën naa bañ a euh, fësal lépp li nga xam ne moom lañ ciy soxla waaye daal budget bi moom ñu xam ne mooy ni ko ñëpp xamee rek ay xayma yu jëm ci wàllu wàllu koom koom moom bu ñu ko dajalee ba noppi tamit fu mu lu muy fu muy war a dem ci wàllu dépense maanaam fi ñu koy jëlee ak fi muy dugg ci liy doxal liggéey bi liggéey complexe bi xam naa foofu tamit ci wàllu communication rek damay damay damay damay profito leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ni maanaam ñu baree bare bari njuumte bi ñuy xaw a def tuuti te te te xam naa loolu noon noonu la maanaam du université dong maanaam complexe la. complexe bi am na pàcc boo xam ne njàngum alxuraan la am na pàcc boo xam ne tamit euh, njàngum majalis la mooy science euh, traditionnelle di mu door a am nag enseignement supérieur ñu bare nag moom la ñuy wax rek université moom la ñuy appellation boobu la ñuy joxe waaye ñu xam ne ñett yooyu yëpp ñoo ci daje moo tax mu doon complexe. loolu moom day mat a day day mat a leeral liggéey bi tamit comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam tey jii lañ ko doon jébale xam naa euh, biñ ci waxtaanee ak sëñ bi tamit moom am na ay gis-gis yu yu yu gën a leer suñu yos yoo xam ne jooxal na ko ci yoo xam ne dana jar bu ñu delloo ñu ñu ñu intégré ko ndax ñu mën a joxe benn document boo xam ne mooy mooy doon document final bi am na tamit benn mémo boo xam ne defaale nañ ko muy wax tuuti ci ni ñi ni ñuy ni ñuy doxale ci ci wàllu fonctionnement fonctionnement surtout finance ak administration boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ci mbokk taalibe yi def xam naa boobu tamit dana jar euh, ñu ñu ñu finaliser waale ko nga xam ne document bu buñ koy buñ koy joxee ñaar ñëw ñëpp ñooy ñooy ànd ñu mañ koo jébal sëriñ bi waaye daal ñu xam naa dañuy tëjee ci foo xam ne moom la ñu waroon a tàmbalee muy muy ñaanal sëriñ bi sëriñ mu Mountakha ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yii nga xam ne yëpp sumb na ko te bii bokk ci te te boo doon yi ko gën a yitteel moom suñu borom defal ko ci tawféex yoo xam ne dana dana ko ci am ak i ndam fekke ko ci gudd fan ko ànd ak wér lool ak eh, ñi mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te ñun ñii ñun ñi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bi ñu gën cee jàpp gën cee ràññee sëñ Ahmed Badawi mii nga xam ne ni ma ko waxee sànq rek maanaam guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ñooy ànd liggéey bi ak sëriñ Mor fay mii sëñ moor mi it naa ko beral ak can ndax moom euh, daanaka heure bu ne sax lañ koy woo moom amul amul téléphone duñ ko tëjal liggéey moom wax dëgg yàlla taxawaay boobu lañ taxaw xam naa ci sant yi tamit sëñ Bousso mii tamit <laughs> danaa ko ci boole ndax euh, maanaam moom tamit yaatal nañ lool ci ci ci barab bi maanaam saa yu ñëwee bu ko wooyee heure bu nekk lañ koy woo tamit te te dañuy yaatal xam naa loolu moom day day sofu ci ci ci li ñu waroon wax sax waaye nag day baax tamit ñu ñu ñu joxal ko tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum ñi ñëpp man Babacar Ndoye la maa nekk chef des services administratifs bu UFR maanaam département sciences de l'éducation de la formation des sports bu université Gaston Berger bu euh, man la Moussa Diouf. directeur de l'audit interne bu université Gaston Berger bokkoon ci commité des experts yu ñëwoon fii di xalaat ci wàllum projet de budget bi waaye comme nu ko sëñ Daali ñaa waxee ñun ñëpp nañ sant sëñ bi bu baax a baax a baax parce que projet complexe xaadimul xaddim bii maanaam Sénégal d'ici fanweeri at mu dana bokk ci réew ñi raw ci Afrique parce que réew dañuy naan soo ko bëggee defar tàmbali si tuut tànk ku jël sa tuut tànk yoral la ba université ci wàllum xam-xam ci wàllum yar ci wàllum liggéey donc kooku am kenn amul fayam donc nag lii ñu ngi siy ñaan képp koo xamante ne si ndaw ñor na la réew pour mu dem il faut pour nga tabax réew il faut nga tàmbali ci ci tuut tànk yi donc sëñ bi wane na yoon bi donc ñun ñëpp nañ nañ si jaar bu bu ko defee fii ak ay at suñu réew gën ci réew yi donc loolu moom wax dëgg yàlla ñu ngi si sant sëñ bu baax a baax baax a baax parce que wax dëgg yàlla mu ngi ñuy defal mu ngi ñuy defal suñu àdduna di defal suñu àllaaxira parce que tey ñun ñëpp képp am nañ njaboot mais suñu sañoon suñu njaboot moo ñuy gën donc ku la ibbil bunt boobu amoo payam donc loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom sama xol laa tibbee yàlla ñu ko yàlla fayal loolu moom yàlla ñu ko yàlla fayal man maa ngi tudd. Mor Faye professeur Mor Faye euh, nekk membre commité de pilotage élargi euh, complexe Ahmadul xadim mooy kuréel gi nga xam ne nii euh, moom la mun taxa taxawal bi mu tàmbalee projet bi Sëñ Ahmad wi jiite ko ak mbokk taalibe yi nekk ci raw doyen ak jàngalekat yi dëkk bi léegi foofu laa bokk di rafet lu baax a baax a baax liggéey bi ñu bokkaat tey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 maa ngi leen di nii nuyu bu gën a yàlla ci ñoom den siyaar bu baax ah, ah jataay bi nag mm, dafa doon jataay boo xam ne dafa ah, sofu sofu ci jataay yi nga xam ne moo daa am ci in ci doxeenu eh, université Cheikh Ahmadou Bamba bi ndax buñ seetee mm, université bañ ko tàmbalee xalaat ba nëga waxtu wu nekk bañ ko tàmbalee xalaat ba nëga ni eh, waxtu wu ne jataay yi ñu ngi doon am moo xam muy ay commission wala muy jotaay ordinaire yoo xam ne dañ ci woo ñeneen waaye waxtu ne jotaay mu sañ a kaam kon bu amee tey jëm ci wàllu xayma euh, ci wàllu finance ak budget euh, itam dafay mel ne euh, dara ci jotaay ëpp solo ci la bokk ndax nit mënul di ndox ci lu mel nii te waajaloo budget am waajaloo nan nga mën a def ba am noo ko noo ko noo ko yore boo fexee ba am ni nga ko yore it dafa baax nga xam ba am ni nga ko yore dafa baax nga xam ni nga ko yore dafa baax it waxtu wu nekk nga xam li nga ca weesu foo ca toll ak la nga ca jublu ci sa kanam nu mu war a tëddee kon door mooy jotaay bi te loolu te loolu mën ta ñàkk te loolu lu am solo la lu am solo ndax li jiitu lépp def nañ ay commission yu bari dafa jëm ci wax ci wàllu éducation wàllu wàllu académie bi wàllu njàngale mi wàllu études yi yëpp def nañ ko tubaarkàlla macha allah yëpp tegu na ci yoon. bu dee ci wàllu tabax gi alhamdulilah lépp mi gën a tegu ci yoon saa su nekk euh, waaye loolu lépp nag li nga xam ne mooy tax mu man koo mu mën a taxaw ak tànkam yu dëgër loolu mooy jataay bi ak di ci juddoo kon jataay bi jataay bu am solo la ñu ngi leen ci nuyu bu baax. leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla mu ubbi ko ci jàmm waaye jataay bii itam jur njëriñ yi nga xam ne moom lañ ci doon seenu leen jaajëfal yéen ñëpp seen coono ak seen déplacement ak seen xam-xam bi yéen indaale te nar ko fay yónnee ak yéen a juree ji loolu lépp ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ci turu bi. di nuyu commission yëpp nag yi nga xam ne ñoo yàgg liggéey ci université bi yëpp ci wàllu étude bi. leen ci gërëm duñ leen fàtte benn yoon ndax euh, yàgg na te boobaak léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci kenn du daw kenn du dang daay waaye ñu beral ran ñu beral nag cant ak nuyoo ak ziar nag sëñ Ahmadou mii nga xam ne moom yàlla moom yàlla ko nattoo industrie bi ndax euh, moom commission yi li ñuy bari bari da dafa mel ne amul benn commission buy daje boo xam ne moom am na droit bañ ko bañ koo teewee commission yëpp da koy teewee wala boog buñ noppee dañ koy rendre compte maa li ci ëpp boo gisee ndaje commission bu ne la ëpp ci say daje da koy fekke te bu ko fekkee itam daf koy assister ba ca njëlbeen ga ba ca muñ ko mu mel ne kon université bi ñun ñëpp la war a xañ jot te ñëpp la xañ jot sax xëy na waaye moom moo ci raw kon moom loolu ajana itam ñu présent ñu préciser leen ko bu baax leeral leen ko bu ngeen xam fi mu toll ñaa jotaay bii kat xëy na ñàkkul ñeneen ñoo xam ne war nañ ko mën a fekkee te tey jii ñu ngi nii moom moom ngeen fi gis waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ci ak matam ak euh, ni ko sëñ bi tànn ak ni ko sëñ bi seetloo ba tànn ko tax na doy na ñëpp doy na nu bu baax ci ci moom rek mu teew ci jotaay bi euh, sëñ bi doyloo na ko ci ñi mu seqal liggéey bi macha allah ñoom doyloo na ko ci ba ci man mi sama bopp jotaay yi ci ëpp du ma ko fekke waaye day ak fekkeem daf may suur daf may doy sëkk ba gëm ne fekk googu teewalaale na ñëpp kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am tey kon daal ci gàttal euh, liggéey bi am na solo euh, ñu ngi leen di wax euh, waa leen góor jaa jëf joo xam ne soññe la maanaam di courage lañ koy tuddee waaye ma wax leen ne di courage nañu góorgóorlu bu baax gën a dem ci kanam te li ngeen wax léegi maanaam jéego avenir la jéego bu am avenir la moo xam ne ci kanam incha allahu ñun ñëpp daanu jëriñ nun euh, lim nuy njëriñ mooy xam ne taxawal gi bokk nañ ci ndax bëri bar mbartal boo xam ne boo tegee sa loxo boo tegul sa loxo mu dem boo ko fekkee ba mën caa teg sa loxo da war a sant kon ñun lim nuy njëriñ mooy loolu ñu am ci tiyaaba ji euh, xam ne bokk nañ ñu ko taxawal waaye ña koy jëriñoo dëgg mooy suñu njaboot suñuy doom ak suñuy sët dana tàmbali sax tey balaa yàgg ñu tàmbali njaboot gi ñu gis leen ñu na waaye ñoo koy gën a jëriñoo kon daal alhamdulilah sëñ mi ñu ngi lay sant di gërëm di sant commission yëpp waaye yéen ñi fi teew itam ci war a waxtaan ci wàllu finance war a koo càmbar ni nga xam noonu la war a dëgg-dëgg te kenn ku nekk ci yéen fa mu loolu la fay liggéey te la mu fay yor la fay la fay liggéey ca loolu it moo ko jiite wala mu ci ña jiite loolu wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek moo am loolu moo mën a am loolu loolu loolu loolu yombul waaw kon daal ci gàttal ñu ngi doolee sant sëñ bi doolee sant sëñ Tuubaa bu baax sant sëñ bi nga xam ne moo nu moo nekk ci bopp yoon wi tey te yàlla dogal xalaatam bu njëkk ci biir liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa nekk ci bopp bi liggéeyam xalaatam bu njëkk di lii di université bi ngeen ñëw jàppale ko ci yéen ñëpp kon moom ñu ngi koy sant waaye ñu ngi leen di sant ñu ngi sant commission yi ñu ngi sant sëñ Axam bu baax a baax a baax maa ngi koy defal defal naa ko léegi ab benn contrat bu ndaw ci lañ doon dox ci loolu waaye alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi sant nañ la gërëm nañ la la jéggalu ci eh, <laughs> gàtt gi ak eh, yéex gi ñëw yëpp ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci sunu nuyoo bu sedd bu sell bu tedd <coughs> ak sunu ziar di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam ci toolub sëriñ bi lépp mu mën koo def ni ma ko bëggee te nu ànd ko ak moom di am mbégte mu rëy ci teewaat ci jataay bii muy jataay bu am solo ni ko sëriñ maam Thierno waxee léegi jataay boo xam ne dafa sofu rek ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ba sëriñ bi joxe ndigal ci liggéeyam bii ba fi mu nekk ni yaatuwaayu liggéey bi nag moo tax mu doon ay kuréel yu bari ay commission yu bëree bari ba daanaka ay bis gu jot rek dana am ñu daje ay bis gu jot rek dana am ñu daje ñu bokkut ak ñu daje woon waaye liggéey bi moo yaatoo moo yaatoo noonu moo amee solo noonu tey nag ñu tase woon mooy ñi nga xam ne ñooy xayma koppar yi nga xam ne moom la ñu soxla ngir mën a doxal liggéey bi ak koppar yooyu fu ñu koy jëlee ak buñ ko jëlee ba noppi naka lañ koy jëfandikoo waaye tëral ay yoon yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo itam dana mën a am ñu nekkaat ci seen biir di ko saytu ba bu nu noppee nu man ne kat nangam lañ soxla woon nangam lañ am nangam ak nangam lañ ci def ñi ko doon def itam nii lañ ko defee mu doon lu am solo nag ci jamono ji nu toll ndax niñ koy waxee daare Cheikhuna Ahmadul Xadim daare juy jàngale la dafay jàngale mboolem fànn nay doomu aadama moo tax ni ñuy yore lu ñëpp bokk itam daa bokk ci li ñu war a fii kon lii ngeen doon def tey bokk na ci li jàngale loolu alhamdulilahi rabbil alamin ni ko sëriñ bi waxee léegi ay boroomi xam-xam daje fi yoo xam ne yemuñu ci doon ay boroomi xam-xam waaye dañoo doon ñoo xam ne dañuy jëfandikoo liñ soxla fi mu nekk nii moom kenn ku ci ne fa mu nekk ci université euh, Gaston Berger ak université virtuelle am na itam ñu ngeen di jokkal ñu nekk université Cheikh Anta ñu nekk université Bambey muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci université sénégalais yi di yor liggéey boobu xam ni mi doxee ñoo doon tëral nag bii naka la war a doxe loolu kon ñu ngi ci sant professeur Mor Faye mi nga xam ne ci commission pédagogique bi la bokk waaye nag féete ndar gis nañ ne moom waa ndar da leen beral loxo seenu njambaar ak seen pas-pas waaye moom itam beral na leen loxo lool ci liggéey bi kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di wane ne bi Cheikh Mouhamadul kàddoom bi am solo yooyee jëmee ko ci woote liggéeyub Cheikhul Khadim bii nga xam ne ni ñu koy waxee wax waxtu wu ne modèle éducatif wala système éducatif la boo xam ne mooy bu sëriñ bi waaye mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu dikke woon rek am na boroom xam-xam bu tagg sëriñ bi ne ko antal murabbi kama rabbal aminu ni nga xam ne noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare noonu ngay yare kon yow yaay jàngale ni nga xam ne yoon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngalee xarfan bi xarfin la ca teg maanaam njàngalem sëriñ bi mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daaray sëriñ bi mooy daaray lislaam yoo xam ne dara raxu raxu ko loolee nag moo tax ba bi sëriñ bi yëkkatee kàddoom mboolem bokki taalibe yi ñëpp jóg ak ak seen kàttan ak seen pas-pas fekk si ko ku nekk ci wàll gam amee loolee nag kon day baax loole ñuy indi itam ñu teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp danañ xam ne li ko taxoon a jóg fii la fi mi ngi ci dem nam ca war a demee loolu kon seen liggéey bi bu ama am solo la boo xam ne ni may tooñee waxtu wu ne euh, commission bu daje ma ne leen bii moo ci ëpp solo waaye seen bopp bii nag moo ëpp solo moom loolu moom ñeme naa ko wax ci kaw mooy fi nga xam ne mënta ñàkk kon ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm ci li ngeen def lu rëy la ndax itam bàyyi seen yitte bàyyi seen jógal seen bopp ñëw di ko def rek xidma ngir xidma xidma mooy nga def lu baax te yàlla rek tax te loolu mooy tasawuf mooy ihsaan di jëf ngir yàlla te yàlla rek tax loolu mooy li ngeen def te lu lu ama am solo la yëkkati seen xam-xam yëkkati seen i jëmm seen i tànk